sànq amin amin amin waa du jàmm kay mais sama wàññi moom mu vide ban kan xawma kan laay yónni bien sûr kan ban Aïcha <laughs> yàq nga ko xam nga Aïcha moom la muy dundam Aïcha dundam moo di nekk ci kaw lal bi WhatsApp Snapchat Viber Instagram

bu amati. adada Major. yow man noppi rek ngay tararari ni rek mais ni rajo bu mënul bu mënul fay yow lan la dama la wara yoni. mais c'est quoi le problème yow lan la da nga fàtte man ma fi chef gannaaw xayaati Fi man may wax di yëkëti sama baat mais yow do yëkëti sa baat. soxna si yow vous prenez pour. qui? pour la première dame. ok euh, pour cette raison mo tax nga may yoni quoi. xam nga luma ma leen di xamal. Bo xamone nak li lay yor yow ak sa borom kër. ah di nga moytu li ngay yoot comment ça parce que man li ma leen di yoota bu ne leen ciixtee di ngeen bàyyi yoot Madior da nga ñuy menacé laa ilaha illallah dóor nga sol loxo tey ci ëpp yow Madior yow yow lii rek la desee woon ah bien sûr gis nga koo xamul fañ ko juree ak nañ ko bootee kooku bu langul jege xam nga la nga war a lijjanti sa 45 ans de célibat 30 ans Europe ñu refoulé la indi la war Sénégal nga ni da nga namat Europe nga delluwaat ñu refoulé waat la indi la Sénégal loolu ngay lijjanti permettre ma la ngay dugg sama vie privée. fais très attention à toi. waaw waaw waaw. lu xew fii. dama lay wax benn affaire. oustaz. man dama man man may wax avant tout rafetlu ma yéen ñaar seen attitude si koñ bi. da ngeen am ay dëkkandoo si weeru koor la nekk. ngeen bàyyi xel ne weeru koor bi ngeen nekk ak seen dëkkandoo yi coow li bari na seen seen jëfandiku. bëgguma ci sax di wax ndax bëgguma di wax ci yéen loo xam ne du leen neex wala mu leen di bett ci man wala moo xam. nga ni yow da ngay àtte dëgg mais war nga xam ni borom këram moom la ñu dénk suñu xaalisu dëkk dëkk dëkk bi. ala kulli xaalis lu mën di am daal faraluma kii faraluma kii li ma bëgg wax rek mooy ngeen xool ni ngeen arrangé wu te moytu coow li. foofu nga waroon commencer je t'aime bien mais dama bëgg nga xeso nit ñi. mais may dugg sant maa la dégg nga wax ba tudd nit tudd si moom safaan loolu jëw la tudd bàkkaar la te dafay wàññi yool ci weeru koor bi ñu nekk. bàyyi naa waxtaan suñu dëkkandoo bi nga xam ne doomam mi ngi koy nax hôpital la jógee barki dembu té ngeen waxtaan bu jubóo man dina ñëwaat après ñu waxtaan ci loolu ngeen baal. ci te jure bu ngeen yaakaaré non la yombé du yombé noonu kon bi ci walu boppam té laa koy réglé ba mu ne kat andi kat maa dox de retour man maa la wax li ma. ah you bàyyi. <laughs> Tu es euh, bah, là. C'est pas grave. une C'est très bien. Aïcha. Aïcha, c'est pas normal ça, Aïcha. Aïcha, c'est quoi ça, Aïcha Hein tante mu c'est pas normal. Ah, eh eh tu sais que tu diminues tes points xam nga le 30 février non, mais vraiment, il y a des ou quoi. Mais il y a fouille. Yow déjà, tu es entré ici sans saluer les gens. Nga am loy imposé. Yow, c'est à toi de me dire ce que je dois faire. Ouais, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, tu es qui Yann Wara Dimbele. Yow, lan le fi minière lo fi def lu extraordinaire ci réew mi lo xax tax na yow da nga wara ñew rek. Xol nit ñi les êtres humains comme ni comme si comme si que y a des rien de ah. ici. D'accord mon homme. Xam nga jardin. D'accord mon. Euh, je vais t'expliquer. Euh, je descends de noble grand-père qui à lui seul possédait 99 esclaves. ah ça m'a condamné day esclavage ah yow kay yow li yow tax nga mel ni nga mel. sa maam esclavage la moo tax doon nga kay ci koy esclavage dëgg yow baadoo la pire nga. yëfi jaam dëgg nga fi def. ah Ndiaye je vous le. ah kay. non mon oncle je vous le permets pas. yow jàll yow jàll yow jàll yow xool na ma la joxe cër. moi je suis je je suis fier d'être le euh, le neveu à ah, Madior.